kii asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu gannaaw bañ leen nuyoo te di leen ziara ñoo ngi leen di baalu àq te di leen ko baal di jiital ci nuyoo beeg ziar bi Serigne Mountakha Mbacké xalifa général kulu murid di ñaan sunu borom subhanahu wa taala guddal fanam ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal maam ji baax ji Serigne Touba may ko ci koy njottam mbokk ñoo ngi fii tey si Darou Khoudoss fi nga xam ne mooy Liwaawul Amdi ñu gën koo xam ci mbaarum fukki fan ci weeru tam xarit ñu doon fi amal benn ziyaara boo xam ne dañ koy jagleel Cheikh Ahmadou Mokhtar mi nga xam ne mooy xalifa Daaru Xudoos dinañ ànd ak euh, ñi nga xam ne mooy suñu mbokki taaliba yi diwaanul muridina ak képp koo xam ne moo aju ci kër gi dinañ ànd ak moom euh, fu seenee bokk ak ñoom ziar bi Cheikh Moustapha santal dayob cant yaa fi gën amul ku lay te ka ngaayoo ci Moustapha tëddal nang nelaw yaa Mustafa ñépp mokk kenn ku ngi jotaayoo tey ak yow fii jotaay bu jafe jotaay bu foor jotaay bu sell macha allah kaar ñii nga jàkkaar lool say soppe lañu baat boobu lii fi tax a ñëw nii di soppe yi Cheikh Hamdi Moustapha ka defaral sëñ Touba Touba taawam mu tedd ba di soppe yi way mu tedd ba Cheikhuna Khadimil Moustapha ki sancoon pàkk bii di soppe yi sangam ba sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ñëpp julli ci moom kon jotaayub soppe yaa ngi nii majlisul ahbab ahbabul Mustafa kama xaala cheikh diini ya xubbullahi wa rasuli wa xubbu xisbihi wa niil tusuli diini ya xubbullahi wal mushafai mustaxniyan bi sirrihi an midfai diini ya tawxidul ilahi wa sana ala allasi bihi kafaanil wa sana wax ne allahuma ya quddus salli wa sallim wa barik ala man nawaytu an abudaka bi xidmatihi li wajhika alkarimi fii tuuba wa fii daari salaami wa fii daari minani wa fii daari qudduusi dal di jël fii daari qudduusi ji def ca xasida dal di xatmu way wa wajal tilka duyura mahrusatan wa mahsumatan wa mubarakatan nag ma defal kër yooyu muy kër yu ñu sàmm yu ñu barkeel yu ñu aar yu ñu musal yu ñu barkeel wa ci ani xaadimiha nag ma fayal ñoo fay liggéeyal bil bilaa iji tabax béytee ngi daara kaami la nga ne sëñ Bamba wax lii wa ci ani xaadimiha bil binaa'i wa naqli amtiati nag ma leen fayal xayran yi woo xam ne yax bituhum dana leen ñee bii cawm xayruhum ku dul ñoom fil haali wal di jàll ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ki nu yaakaar moo ko fii kon loolee yàlla ca teg suñu loxo te muurloo ko sëriñ bi nga yàgg fi te wér yàlla na suñu boroom dimbalee nga yàgg fi te wér nu yàgg sa gannaaw te wér. fi teew nag ci ay kuréel lañu tënku di kuréel yoo xam ne xubbul Moustapha moo leen tënk di la siyaare mën na ña ña ca bu ñu wax kuréel yi diiwaanul muridiina sëñ Ousmane Mbakke ne ca bopp ba ittihaadu atbaa'il xadiim lambaale wilaya Touba yëpp jamaahatu ahibbaay Cheikhil Khadim li nusrati diinil qawim Serigne Diop Makhtar ñëw na ànd ak i hadiyaam ak mboolem waa ahibbaayil Khadim fédération Islaahu Daarayni sëñ Cheikh Lo Ngogui Munawwir Sudur kër sëñ Mahmoudan Majmahun Nurayni kër sëñ Aliyu Mawaaridul Asfiyaay kër sëñ Ahmadou ak Tuhfatul Mustadarriina as-Saalikiina kër sëñ Saalihu Mbàkke Moustapha ahlu sidqi fi lmahabati wal walaa'i li Cheikh il Xadim kër sëñ Ibrahima Xafsatu ñoom ñëpp a teew al muxsinina wal muxsinaat kër sëñ Xaadim Moustapha taawun fi sabilillahi daare sëriñ Ahmadul Muxtaar al muxlisina wal muxlisaat waa kër sëriñ Fallu Mbàkke Moustapha am naa u suyuux muy doomi seex si seeni soppe yi nga xam ne ñoo takkaat seenu ndigg di liggéey ngir loolu yi tax ñoo ñi tudd ñu teew fi ñu dolliwaat ca kuréel yu aji ci kër soxna May Munatu Mbàkke Moustapha yàlla na fi yàgg loolu te wér soxna Daba Fall mar mooy jëwriñ ja teew na ci réunion yi ñu doon daje yëpp moog soxna maam Ami mi jëmmi soxna May di loxoom ak soxna maam Coro Mbàkke ak soxna Daba Diop ak soxna Fat sambu soxna Awa Samb soxna Mati Kan ak ñeneen ñeneen euh, ku lim doo matal doon présenté mbooloo mi fi teew rek ki la xamal ne teew nañ ci pàkk bu sell bii di tëbbliku di sakku ak tëbbliku ci leer yi ci pàkk bi sëñ Tuubaa moo bindal boppam mag na bu bindee lam bind ñor na ko kon pàkk bi xam nañ xam nañ li fi sëñ bi bind ak lim fi def mbooloo mi fi teew nu ngi ñaan nu muurloo muurum pàkk bi ku fi toog ku ne tey jii ngoonu Achoura di màggal di fàttaliku Cheikh Moustapha gan ak jamonoom ga ak feeñu pàkk Touba di fàttaliku Daaru Salaam yow ma Achoura moo doon ganam ga booba laa miraa fekkoon na bàyyam génni listixaar yi ngir bëgg ñëw Touba mahal abraari bis bam gënee adduna gis na booba leerug rasulullahi sarba Touba noo ngi li ko ci leeru rasulullahi googee ndax dañ doon sopp Cheikh Moustapha tabbi ci biir leeram gi di fii ndekete leeram ga daa lëkkaloo ak leeruk Cheikh Ahmadul Khadim muy genn leer ñi fii ci biir ndekete mooy leeruk Sayyiduna Muhammad moo tax ñi fi teew ñëpp soppey Sayyiduna Muhammad soppey Cheikh Ahmadul Khadim soppey Cheikh Moustapha soppey gaa yu baax yëpp fii kulli zamani wa makaanin ñoo teew fii di la siyaare di la sargal di la ndokkeel di la ñaanal nga yàgg fi te te loo am mënu ci fàtte yàlla na nga am ba doyal yàlla na nga dund ba doyal ci barke pàkk bi ak borom pàkk bi ak li pàkk bi làmboo yàlla na yàlla sàmm aar la nga dund ba doyal soppe yëpp toppi sa gannaaw taalibe yi daal mooy li ñuy sàkku nu mucc nag ci mbas mi ci darajee pàkk bi mucc ci jàngoro yeeg bakkaar yeeg bekkoor yeeg bagaar yeeg lépp luy musiba lor noo ngi sakku ci yi pàkk bi ak la mu làmboog ña ko moom ku fi teew mucc yàgg wir gudd fan am barke na ko sëñ bay jaxate waxe woon mucc ak njëriñ gudd fan nag wér xaalis ngam lu ci ne yàlla nuy dalam dib néegam ci yi borom pàkk bi daari kaamil jaa nga ne bu ci kenn ëppale na ngeen fexe ba CRC na ci seen seen ñaq dem ma nga ne am sima indil ku am fer indil feer bi moom xeer moom doy na mat na sëkk xeer ba doy na feer baa nga nee ciment lañ soxla ak feer dañ ko bëgg a xadd muy nii bi gën a rafet ci àdduna ñeel alxuraan fii ci kër sëñ Touba néeg sëñ Touba ngi nii nekk alxuraan a ngi nii alxuraan lu sëñ lu ma sa rafet sëñ Touba alxuraan la ko jagleel nu ngi leen ciy soññi kon loolu moo doon waxtaan wi nu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ bi asalaamu aleykum wa rahmatullah yéen mi teew mi ngi leen di nuyu li gën a bari te di leen sant seen taxawaay waxtu wu ne waxtu wu ñu wootee lu jëm ci sëriñ bi rek mu gis seen taxawaay ak seen pësteef nee na mi ngi leen di sant ci loolu di leen ci gërëm. nee mu ngi ñaan ngeen sax ci. ndokkeel ci at mu mi. ngi leen di ndokkeel ci at mu bees mi. mu def nu mu ngi sant suñu boroom mi def nu fekkee ko. fekkee ko ci jàmm ak tal. nee na mi ngi ñaan at mii muy atum xéewal. di atum mbégte mu ne li balaa bii fi xew muy tawat jii xew suñu borom jëlee ko fi. mbooloo mi fi teew yëpp it tudd leen. nee na yéen ñëpp leen di sant di leen gërëm. mooy daan ñi daa tudd mu ne dafa gis ne at mu ne. Pastef bi day yokku. mais nag ñii fi teew rek yëg na ne yokku na bu baax a baax a baax nee na mi ngi ñaan loolu yàgg ta sax nga yàgg te sax. Eh, mu ne mbooloo yi ak daayira yi tur yi bari na lool waaye lépp benn rek la benn rek la tur yu bari yoo jëmm la ndax nee na loolu lépp fuñ tudd lépp ci alalu seex mu njabootu seex mu sawaare seex mu soxla jëm ak sëñ Tuubaa mi nga xam ne. moo sos yoon wi nee na xam na ne yéen a ngi ci te yéen a ngi ci woon naka jëkk nee na waajur yi ñoo nu ci jur yar nu ci nu fonk ko nañ ko digale woon oh, nee na loolu yi ci sax yal nañ ci sax nee nag mi ngi leen di digal lim leen daa digal. nee na yéen a ngi ci waaye ngeen gën ko feddali. te mooy jaamu yàlla. sàmmonteeg ndigalam yi. moytu ay tereem. nee na loolu yi mooy li yàlla digle yonent bi digle ko. Serigne Touba it génnul lu baax li lu baax lépp muy Serigne Touba. kon nee na nan góorgóorlu ci loolu yi lépp lu baax nee na loolu yi dañ la digal boppam ci la ne nee na mi ngi leen koy digal nee na xam na ni yéen a ngi ci woon waaye ngeen gën koo fonk téye ko bu dëgër bañ koo fàtte benn yoon sëriñ bi ne mi ngi leen di sant di leen gërëm nee na mi ngi feddliwaat euh, confiance am wóolu téem ak téyem ci yéen kullereem feddali kóllëreem ak wóoruteem ak yaakaaram mi ngi koy feddali ci yéen. di ngeen taxawoo kër gi. nee na it ni ngeen taxawoo kër gi. kër nee na lii lépp kër gi rek a tax. sagal kër gi. sagal kër gi. téye ko. xam ne seen kër la. xam ne seen kër la. ngeen gën cee góorgóorlu. nee na ngeen gën de. gën koo gën koo sàmm. te xam ne kër gi yéen ko moom yéen ay kër gi de. nee na kër gi fu amee ñu fi ñu ci dëkk yéen ci dëkk yéen ko moom kenn du ci dëkk kon yéen ko moom yéen ñuy waa kër gi. nee na xam na ni yéen a ngi toppatoo seen alal seen yëf. mu ne kon loolu yi mi ngi leen di yéene di leen ñaanal cey li ci ne ngeen gën cee yàgg. gën cee dolli ku positif nee ngeen sax ci ba faw amiin mi ngi leen di sant leen gërëm jërë ngeen jëf alhamdulilahi rabbi na ko ñëpp ñaanal mu yàgg fi lool te wér ku loo wasra boo dex gaa ngi fengat te dootu daay sëriñ bi barul juudi nuur leen fa Mustafa